sëriñ bi nee na asalaamualeykum wa rahmatulahi taala wa barakaatuhu yéen bokki jullit yi fi teew di bokki murit yi fi teew di bokki taalibe yi di njabootu sëriñ Touba nga xam ne lépp a ngi ci biir di njabootu Cheikh Ibrahima Fall nga xam ne lépp a ngi ci biir mu leen di jottali kàddu yu nuyoo yu bàyyi ko ci suñu sang yu baax yéen bàyyi ko kay jëwriñ ja di Cheikh Mouhamadou Moustapha Fall moom seriñ Modou Mbenda di jëwriñu maam Cheikh Ibrahima Fall jaar ko ci jëwriñam ja Serigne Cheikh Fall moom seex Modou Moustapha Fall ñu gën koo xam ci Serigne Cheikh Ndiaye Mbeng ñu jox ñu nag ay seeni kàddu ak seeni baat ak jiitu ca kanam mbooloo mi ñaan ko moom Serigne Falilou Fall sëñ Modou Aminata ak njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall gépp lii wax ak tey nag. ne fii ñuy wax ak yéen tey nag. mooy marché Ocass. mooy marché Ocass. ñu di ko jàkkanteel ci njóobentaay bi. nga xam ne jëwriñu marché baa ngi nii teew. ànd ak ñi mu ko bokkal. muy Serigne Siri Dieng. ak waa presse bi nga xam ni. rajo yi benn disu ci. yëpp ànd doon teew nii. ngir bëgg rek. jottilil Serigne Touba. ndigalal lim jox murid yi. ba murit yëpp man koo dégg ndax ñoom buñ ko déggee danañ ko jëfe de kon lool mooy seen teewaay bii kon nee ñi ngi ñaan ci barkeb Cheikh Mouhamadoul Mountakha Mbacké ginnaaw buñ ko ñaanalee mu gën fee yàgg gën a wér ak mboolu njabootu Sëñ Tuubaa gépp di ñaanal Cheikh Modou Moustapha Fall moom Sëñ Modou Mbenda jëwri ñi maam Cheikh Ibrahima Fall ji mu yàgg fi lool ak njabootu Cheikh Ibrahima Fall gépp ak nun murit yëpp nag. di ñaan nag di ñaan nag. ndigal li Cheikh Mountakha Mbacké joxe. ndigal li Cheikh Mountakha Mbacké joxe. tamit lu mu yeesalaat. tamit lu mu yeesalaat. nga xam ne day mel ni sëñ Amdi Moodu Mbenda. bii mooy ñaareel bi mooy ñaareel bi fekkeem. ndax fekk woon na ko daaw. ndax fekk woon na ko daaw. fekk war ko ren. waaye yàlla na ko yàgg a fekke nag. ndigal yaa nga jaar ci moom. ndigal nga jaar ci moom. yàgg a jaar jaar ci moom. ba ndam yi magam yi amoon yëpp jaar yëpp. ba magam yi amoon yëpp. yi fi jaar yëpp. bàyyam yi amoon ko yal na am lu fawxa loola ndax yoon wi baaxuwul tànk ginnaaw tànk kanam rek la baaxoo lu mujj ñëw rek day day gën a bari ëpp fa doole kon ñoo ngi koy ñaanal moom suñu am di bu baax a baax mu am ci ndam yu bëree bëri rek te ànd ko ñun murid yëpp suñ Siidi Jeng ñëwaat nañ fii ci ndigalu Cheikh Mouhamadul Mountakha Mbacké jaar ko ci murid yëpp nag. li sëñ Muntaxa di woote nag. li sëñ Muntaxa di woote nag. du ab coono. njëriñ la war a jëriñ. njëriñ di woote. kaay leen jël la kaay leen jël wax. buñ ko mënoon a may. buñ ko mënoon a may. kenn xam na sa kër. kenn ku ne xam na sa kër. ba dëkk ba nga nekk. kon fa la ñu ko yónnee may ñu ko. waaye day alal yàlla joo xam ne. waaye day alal yàlla joo xam ni. moom day mën su ko maye. des ko jaay rek. lay njëgg nag. mu wax ñu la mu bëgg. ko defee. suñu borom def lépp luñ bëgg. yéen nag yéen a ngi def li sëñ Mountakha bëgg tey jii kon nan rafetal suñ jort bu baax xam ne suñ ñun liñ bëgg suñu borom dinañ ko defal ndax ñun day bëgguñu dara lu may jekku ndigalul sëñ Tuubaa yi te yàgg koo jëfe rek kon loolu yal na nu dal jàngoro yi murit yi fi teew yëpp muy góor a jigéen ñoo bokk jenn jàngoro suñ jàngoro mooy li sëñ bi bëgg ca mënuñu ko loolu rek moo nuy metti waaye li sëñ bi bëgg buñ ko mënee dara méttiwuñ kon li sëñ bi bëgg yàlla nañ ko mën murid yi liggéey bi nag mbale la tudd waaye bale nag ay wolof la mooy bale dañ lay baal say bàkkaar bale mooy dañ lay baal say bàkkaar baril sa wërsëg it barkeel ko kon loolu ku ko dégg du lu du lu ñuy maye. du lu ñuy maye. lu ñuy jaay la lu ñuy jaay mooy ñëw jëf. njëgg mooy ñëw jëf. gi nag ñëw gi nag. bari na ay yoon léegi lool bari na ay yoon lool léegi. Western Union mi ngi fi. waree ngi fi waree ngi fi. li li ñu wax. wéef li ñu wax wéef mi ngi fi Orange Money. Nestlé it mi ngi fi ubbi na aw yoon. ak Orange Money ak MoneyGram. loolu loolu foo ca jaar. ne yoon yooyu yëpp yoon woo ci jaar. dana la indi ci dëkk bii di Touba nga bokk ci ndigal li waaye dégg ndigal li te bokkoo ci du jariñ lu bari ndax dégg moom baax na waaye amul njariñ nag jëfe rek moo am njariñ kon nañ leen jëfe ndigal li Baay Faal yàlla na nu Sëriñ Tuubaa dimbali ci barke maam Cheikh Ibrahima Fall sa maam ba nii ko sëñ Muntaxa Mbàkke bëggee ñu mane ko ni ca defal ko ko làq ci ay ngërëm seen ànd ak yow fii nag yàgg nañ fee ñëw yàgg nañ fee ñëw ñëwuñu fi tey dong waaye yàlla na gën a yàgg nag waaye at mun fi ñëwetee ci barke borom barab bii muy Serigne Touba ak jëwriñam ja nga xam ni moo tuddoon marché bi di Serigne Fallou Mbacké mu dolli fi ay xéwal yu ne gàññ te barkeel liggéey bi bu baax a baax te yokk suñuy fan yokk suñu wér yokk suñu wërsëg yi waa presse bii fi teew nag nee mi ngi ñaan ci barkeb Cheikh Mouhamadou Mountakha ci barkeb Cheikh Ibrahima Fall kenn ku nekk ci yéen fa nga bëgg sab liggéey yegg fa yal na la ko fa Serigne Touba yóbbul te barkeel seen liggéey bi te musal leen na ci méppum ndog te boole ñu jéggal ñun jullit yëpp nag ak murit yëpp nag ban am ngërëmul Sëñ Touba ndax ngërëmul Sëñ Touba kat mooy tax a tàbbi àjjana waaye ko amul ngërëmul Sëñ Touba sa mbir dees na ko seet ndax dan ñoo yónni fii ci jamono di ñu tuubloo si tuub nag kun jéggal gërëm nan la kon kun gërëm kooku mooy dellu àjjana waaye kun gërëmul nag fa nga jëm yaa fa yóbbu sa bopp waaye sëñ bi moom wax na lu ñu bëgg nan góorgóorlu bu baax a baax lin amul lu doy moom ñu gën koo jàpp bu baax a baax muy sëñ Tuubaa mii sëñ Tuubaa nag moo de ak taalibe rek ak taalibe nag bu ca ab yar génnee teggin génn ca jëfe ndigal génn ca ak taalibe nekkatu fa gaa yi kon nañ ne sax ci ak jub tey jëfe sunu ndigal yii di wattandiku tere yi te gore sunu làmmañ yi nee na liñ ci waxoon buñ ko fàtte murit ñun ñoo waxoon sëriñ bi na la sunu bopp adduna mii ñu nekk ak àllaaxira gën jëm loo ñu digal ñu def ko loolu tere ñu bàyyi ko loolu na gor ko wax war ngaa sàmm say wax murid di fàttali ko loolee nga ko dëkk bii ku dul sëriñ Muntaxa Mbàkke ku dul sëriñ Mouhamadul Muntaxa Mbàkke tey jii bisub tey jii war ngaa génn ci biti ñu gis la wala nga génn lu ci jiital njaboot gi ànd ak ñoom fas yéene jëfe ndigalu Sëriñ Tuubaa ndax kat bu ñuy séddalee dara fi ñu toll nii ci dëkk bi quartier bu amul da nga leen dégg nit ku amul di ko dégg te lii lu ñuy séddale dong la du lu ñuy maye kon génn leen kër yi te ñëw ci baatum ndigal bii fu waay mën a nekk muy fukki régions ak ñeent ak waa bitim réew ñun ñëpp la ko Serigne Touba boole beralu ko kenn duñ ni Baye Fall yi duñ ni Njaay Njaay yi duñ ni waa Jengeen yi ni waa Saareen duñ ni waa Mbusoobe murit rek la Serigne Touba murit nag ku jébbalu ci nga bokk waaye ku jébbaloogul nag bokk góo ci nag ne ku jébbalul moom te murit jur la doomi murit nga ku ñaanu ñaanul wird ca tijaan jur la doomi tijaan nga am murit day jébbalu ab tijaan day ñaan wird kon nag ginnaaw jébbalu nan li ñu waxoon nan leen ko sàmm bu baax kon na jërë ngeen jëfati ndigal laa ngi nii na ñëpp génn ñëpp ñëw ñu ànd liggéey liggéey bi ba mel ni ko sëñ bi bëggee ñee ñun liñ bëgg sëñ Tuubaa defal ñu ko ci barkeb Cheikh Ibrahima Fall kon sëñ Siiri Jeng yaag waa marché bi jërë ngeen jëf sëñ baa ngi leen doole sant bu baax nag di leen doolee gërëm ci liggéey sëñ Tuubaa bii ngeen ne ndax lii ngeen def kat sëñ Tuubaa ngeen koy defal ndax bu ngeen fi nekkul woon dañ koy yónnee ji Kolobaan wala Kaffrine wala Ndar wala xaay waaye duñ ko mën a ñàkk de waaye yéen ñi ko indi Sëñ Tuubaa ba mu nekk fii nee di ko wattul njabootam gi di ko yombalal njabootam gi yéen a ngi liggéeyal Sëñ Tuubaa yéen seen séedi kon liggéey boobu yàlla na yàgg ci yen ci ànd ak barke nee jërë ngeen jëf nee ñi nga sant ñëpp